Diagne voilà asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di te teew si jotaay bu tedd euh, fekk si mbokk yëpp yi nga xam ne ñu ngi àndandoo di xeexandoo ngir dëgg ndax jotaay bi suñ ko doon misaal rek dañuy wax ni taxaw la xeex ngir dëgg euh, xeex tooñ ndax tooñ jamono ji bëri na suñu réew may faral di wax ni état dafa am dafa am euh, ligne de vie comme nu amee produit mu amee cycle de vie euh, état dafa am cycle de vie état dafay tàmbalee si ñu ragal ko da day am toute une puissance euh, état yëpp noonu lañ commencé ci àdduna bi yëpp état di dem di dem nit yi di yeewu nit di xam ba ragal boobu du fa nekkati waaye wegeel moo fay nekk di commencé weg état ndax xam na ni état mu ñuy taxaw mu ñuy liggéeyal état su ko nee tappale di caaxaanee doole askan wi day dem ba jamono bi nga xam ne état dañ koy commencé ñàkkal solo dañ koy ñàkkal fayda dafa mel ni Sénégal aujourd'hui foofu la dañoo jël état bi infantiliser ko nekk ci ay détails yu ñàkk solo di narge askan bi war ñu carrément ni xeexuñu ngir suñu ay bëgg-bëgg ak suñu ay taxawaay di faggaagal nag ñëpp ñi xam ne ñoo ñuy taxawu ak dañu xeexal Ousmane Diagne si ñun la bokk ñoom Papito Kara si ñun bokk xale yéen ñi jàpp naan force spéciale lañ ci ñun lañ bokk am na ñeneen ak ñeneen nekk ci biir prison bi ñi xam ne yëpp ci xoxotalu président Macky Sall moo tax yu nekk ci prison boobu. aujourd'hui nag fi ñu toll période bu doy waar la bu ñu war def très attention ndax lu bëri ci lu ndaw a ndaw mën na basculer te tolof tolof mën na dugg ci dëkk bi euh, président Macky Sall nag xam naa ni ñu ko wër yëpp ñoo koy monter di ko woo di ko bu max ci ci musibam ma koy woo di ko ñaan ne ko na xoolaat taxawaayam na bàyyi réew muy foowee na bàyyee doole bu ñu ko dénk pour mu liggéeyal ni mu jël ko di ko caaxaan ne duñ ko toroxalee. Mm. na na yeewu pendant qu'il est encore ndax mu ngi yàq taxawaayam Sénégal. Mm. su ma waxul sax ne yàqu na pare. waaye li muy doxal ni instant yi tax na du mënti dëkk senegal su paree mandat te mandaam gëmu mu yegg 2024 wax dëgg yàlla yàlla nu yàlla defal ñu tawféex libéré ñii ñu jàpp teg leen loxo euh, Ousmane Diagne ak ñëpp Ousmane est très préparé Ousmane góor yàlla bi nga xam ne si di ci dox xam na ko jullit la ku am iman la ku ràññee diggante ak borom na te ku xam bëgg-bëggu dëkkam la ñu euh, ngi koy wax ne na gën a dëgër na muñ ndax yàlla mu ngi ànd ak muñkat yi lii épreuve kese la bi nga xam ne daf ci màggee rek waaye du si torox mukk ilaa yawmi yàlla may ndam ci réew mi yàlla na yàlla jëleel problème bu Sénégal ndax jamono bii Sénégal benn problème la am mooy Macky mooy sël problème bu Sénégal waaye problème bii moom kese sukk ko daf ko ànd ak benn mafia très organisée bu am ay magistrat am ay force de défense de sécurité am ay marabout am ay fonctionnaires am ay investisseurs étrangers ñëpp dañoo àndandoo euh, ci mafia bu organisé boobu pour toroxal ak pour foowee Sénégal duñ leen ko may duñ ko nangu yàlla na yàlla may taxawaay ndax li ñu nekk nii wallahi azim jihad la ñu ñoo ngi fi depuis deux heures trois heures julleeguñu benn waxtu waaye ñoo gëm ni ñu ngi si julli instant lii ñu nekk nii lii la yonent yëpp wàccoon ci kaw suuf xeex caaxaan ak saxal dëgg alxuraan nag wax nañu ne qul jaa al xaq wa zahaqal baatil dëgg teew na te dina dàq neen neen gi mag yi tëral wallahi azim du wéy yàlla na yàlla may ndam ci moom salaamaaleykum wa rahmatulah